ñu ngi sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba xaadimal Moustapha suñu yaakaar tey ak ëlëg di ñëw di sant sëriñ Touba fii ci dëkk bu tedd bi ànd kook euh, sëriñ Jili mu sëñ Abdou Aziz Baara de le président des petits-fils de Serigne Modou Bousso Dieng est euh, aussi euh, un homme euh, très social parce que nous koy très souvent ci weeru koor bi def actes sociaux à l'endroit des des des personnes démunies mais aussi il est le président Nasrou Nasrou 18 Safar bi nga xamante a association qui a ni ñi nga xamante ni dañuy accidenté euh, ci ci yoon bi ci màggal bi ñu leen ñuy assister gratuitement mais aussi day œuvrer dans la solidarité dans l'entrepreneuriat dans l'entraide euh, di jàppale les jeunes euh, pour que ñu mën a am seen autonomie ñu am mbégte loolu nag teew fi parce que nag sëñ bi nitu ñëpp la nitu ñëpp la c'est un mën nañ wax ne c'est un homme religieux très très ouvert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 yéenay waa Dakaractu euh, ci teew bi ngeen teew fii ci màggal gi ngir leeral liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci màggal gi nga xam ne ku tedd ki di Cheikhul Khadim moo ci woote ngir ñu santale ko euh, suñu boroom cant googu nag dafa am ay sabab ndax sëriñ Touba suñu yaakaar buñu wowe ñun talibé yi nañu nañ ko santalé suñu borom kon xam nañ ne cant googu ñor nako ndax limu mu sant suñu borom ci diko ko ci ay khasida euh limu tag sant yonnent bi sallallahu alayhi wasallam lolo kenn mënu ko caa fekk si waye bëgg ñoo xamal magu yalla ak wayu daraja ji nga xamne suñu borom defal na ko ci bis bi ñun mouride yi ngir ñu man ci gëna a jariñu tax ñu mu woñu ci ñu santalé ko ah, bis bi nak dafa am sabab waye bala may jall ci sabab bobu ñu taxaw ci sante gi sante gi daf ñu digal ñu santalé ko yalla ci jang alquran santalé ko yalla ci jang khasida nga tag sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, daf ñu wo ci sante gi ngir ñu bernde ngir teral doomu aadama yi ndax ku ne xam na ne kuy wut yàlla eh, jaarale ko ci doomu aadama yi mooy gën a gaaw kon lu yaatu lañu la ñu sas waaye nag taalibe yi tamit fu nekk ci àdduna bi jóge nañ fi ngir teew si fii ci Touba ngir santale ko suñu borom boobu mu ñu waaye ñi munta ñëw tamit fu ñu nekk ci àdduna bi dajaloo nañ ci ay mbooloo ngir santale ko suñu borom ci fànn yooyu muy jàng alxuraan jàng xasida def ay berne cant gi nag bi muy génn di wuy ji euh, liggéey bi nga xam ne suñu borom euh, tàllaloon na ko mbër ñu bari waaye néewoon na ñu ko mën a dékku ndax daraja ya ca nekkoon kawe na waaye yan ba diisoon na waaye moom dafa xamal suñu borom ne ko boo ma téyelee ruu gi rek jom njëg li fit wi mën na ko moo tax bi mu génnee Touba jëm jeewal ngir mën a euh, dékku ci yan boobu ndax xamaloon nañ ko ne ko ba nekkee Touba ndax Touba da ñaanoon suñu borom bu fi bu fi bu fi dara nekk bu fi dara dugg loo xam ne luy xeetu nattu la kon dafa war a génn Touba ci la génn dem jeewal waaye ba mu demee jeewal fa la bàyyi ko jëm ndar yaa ngi dégg muy wax nafaali xayrullahu xablu fi ndar bi ahli badrin usulu kadari kon ba muy dem am na lu bari dem googu lu mu làmbool waaye ba muy dem ci géej gi tamit bi mu àggee ca ndar lam fa fekk mooy liñ doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne seen lépp dafa niroo muy ndax dañ koy rey wala dañ koy génne réew mi ci lañ ko génne Sénégal yóbbu ko Gabon ci ay jamono yu kiimaane ngir mu liggéeyal suñ borom waaye liggéey boobu nga xam ne demoon na ko defi amul dara loo xam ne tey jii ci ci ci ci adduna bi laay wax surtout Afrique ak fii ci Sénégal gi nga xam ne ñun ñoo am sens suñu boroom jagleel ñu Cheikhul Khadim liggéey boobu de naka ko suñu boroom sante woon defe ne ko noona ba tax na mu jële sa ndam lu rëy a rëy ba tey suñu borom fay ko lépp loo xam ne ni luy xéewal la muy xéewal adduna ak ay xéewal alaxira moo waral tey cant gi mu ñuy santaloo suñu borom ca bis bii nag daf ñoo xamaloon ne saa bu dellusee suñu borom day ful may yi nga xam ne ni mayoon na ko mayoon na ko ko ba mu jeexale liggéey ba nga xam ne nii yan bo yan woon na ko at mu jot lam lam ko joxoon ci ay xéewal da koy da koy da koy dool da koy da koy del dolli kon nag loolu jar na di sant suñ borom saa su ne surtout kon ci bis bi kon digal gi mu ñu ko digal loolu rek waxuma la liggéey ba mu liggéey waaye may gi nga xam ne suñu borom da koy dool rek jaroon na di ko sant di ko santale kon nag ñun liggéey boobu nga xam ne suñu borom suñu borom euh, yanoon na ko ko mu dem liggéeyali ko mën nañoo wax ne liggéeyalu ko woon boppam ñun murit yi la ko liggéey liggéeyaloon waaye àdduna bi la ko liggéeyaloon ba nga xam ne tey fépp foo foo foo foo toll ci àdduna yaa ngi dégg alxuraan ji yaa ngi dégg xaside yi euh, fépp ñuy ñuy màggal euh, suñu borom di sant suñu borom ci mbaaxu euh, sëriñ tubaa gi nga xam ne moo moo moo yan woon yan boobu kon nag bis bi bari na ay mbir yoo xam ne nii làmboo na ko ba tax na dinañu rekk mën a wax ne tey jii teewaay bi nga xam ne jaamu yàlla yi teew nañ ko ci bis bii eh, jàpp nañ ne képp koo xam ne nga fi sa aju fajuna ndax bis la boo xam bis la yu bu ci kon loolu moy li nga xam ne nii eh, mooy ci gàttal li nga xam ne nii moom la ñu mën a résumé ci ci ci ci ci ci màggu bis bi ak ak ak eh, limu lambol làmbool waaye boo gisee ñi nga xam ne fi nekkaloon Serigne Touba Euh, di xalifa yi ko fi toogaloon saa bu bis bu bu ñëwee dañuy yaatal woote boobu waaye dañ koy gën a dëgëral ngir soññu taalibe yi euh, ci seen taxawaay bi ñu war a am ñu xam ne lépp lu ñu am lépp lu ñu mën euh, sëriñ Tuubaa moo tax ba tax na kii fi nekk di mun Muntaxa ñu koy ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko te woyofal yanam bi ndax moom bi mu ñëwee tamit bari na loo xam ne nii euh, wane na ko ci euh, li nga xam ne dañ koy soññu ci pas-pas ndax day nit koo xam ne bi fi doomi sëriñ Tuubaa yi nekkee moo mas a nekk jëwriñu murit yi ndax moom ku fi nekkal sëriñ Tuubaa moom moom ngay jël teg ko ci kanam muy ab soññee ci ñun waaye bi mu ñëwee moom nekk seexul xadim euh, indil nañu soññe boppam boo xam ne nekk gi mu nekk sëriñ tubaa moo tax ñu soñ mu soññ ci soññ boobu muy lan muy sax ci ak jaamu yàlla ci ak jub waaye sax ci ndigalu suñu borom ca moytu tere yi waaye sax ci di sàkku xam-xam eh, di ko sàkkuloo ndaw ni ndax seen jubluwaayu ëllëg ñu mën a nekk nit ñu jub ñu mën a nekk nit ñoo xam ne nit yi lislaam la ñuy doon ba tax na ku ne xam na ne génn nañ ci euh, lu rëy loo xam ne mooy euh, masalikul jinaan bi ñu doon euh, ubbi te liggéey boobu ba muy door ci sëriñ saaliwu jaar ci alaaj alaaji bare falilu jaar ci sëñ sidi muxtaar mu def te lu lu lu yéeme waaye loolu lépp ba muy am ci loxo yi sëñ muntaxa la nekkoon moo nekkoon jëwriñu liggéey boobu ba bi ñu ubbee masalikul jinaan Euh, ku ne xam na ne day euh, moom ci boppam mu am lu bees lu mu indi ci ci ci ci ci ci ñun muy muy muy pas-pas pas-pas boo xam ne nag euh, ku ci ànd ak moom waxoon na ko ci njëlbeenam ku ci ku dem moom day dem ku demul mu dem waaye gis nañ ne murid yi tamit pas-pas boobu ba mu leen ci wooyu ba léegi ña nga pa ña nga fas ña nga ko fas rek ànd ak moom ndax taxawaay bi ñu taxawaay ci Masaalikul naan ba agsi ci màggal gi ku ne xam ne ne màggal gi ren wuute naag màggal yu bari yu fi daan yu fi doon fi doon am ndax nit ñi euh, boo gisee nit ñi taxawee te lu baree baree bari euh, wuute na loola ci ci ci màggal yi nga xam ne moo fi doon jaar kon nag ñi ngi am yaakaar ci liggéey bi nga xam ne nii moom la sumb muy université bi nga xam ne mooy jubluwaayam ci xam-xam ndax mooy li ko yitteel yàlla sottal ko ci nu mu gën a gaawee waaye ñuy ñaax sama ñaax sama bopp di ñaax képp ko xam ne taalibi nga nga bàyyi xel ci liggéey boobu ndax xam naa ne lu ma leer boo liggéey bi sottee université bu sottee dina am liggéey bu gën a rëy boobu boo xam dina ko teg ci suñu kanam kon ñu waajal ko ca xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek mooy mooy li am solo kon nag euh, ñi ngi sant bu baax euh, ñi nga xam ne ñoo fi teew di euh, di ay soppe ak i taalibe di ci jiital soxna si soxna Aminata Lo muy soxna si kër gi di taxaw talibé yi ci bésu magal yi nga xamné mom lañu magal fi màggal di ci sonn lool ak ñi mu andal njaboot gi ñëpp di la yow tam bu baaxa baax di sante sa soxna si nga andal di sante ah, ñi ñu fi fekk gan ñi fi fekk soxna fatou moom itam ak yaayam ñi ngi fi di ñëw di siaré si di magal fi ci ci kër gi ak soxna Awa Faye mi nga xam ne moom itam mos a jóg ci liggéeyal sëriñ Touba fa mu nekk ci ci ci Ndakaaru ñëpp xam ko ci euh, fale ci Kër Masaar waaw di dajale taalibe yi ci ay daayira di leen xiir ci yoonu sëriñ bi euh, ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla suñu boroom ci bis bi bisu Serigne Touba bi mu may ko ay ndam ci liggéey boobu muy liggéeyal sëriñ tubaa di gërëm bu baax Dakaractu ndax ñoom. Euh, liggéey na ma ak ñoom ci ay bis yoo xam ne nii bissu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ci CICES maa nekk maa nekk président comité de pilotage bi waaye gis nañ bu baax taxawaay bi ñu am teg ci diine ji ci kër kër yi yépp waaye ci développement wu Sénégal. salaatul lazi fi kulli zarin wa fi safar hamani ala mahim ma al hassa wa safar